Euh, def corruption et cetera teewul aussi résultat yi bu ñu génnee joxe li mu joxe rek. ci mhm. élection yi génn élection mhm. législative. am kenn ci yéen ku ñu ku ku ñu teg loxo di Ousmane Diagne euh, mafia kàcc kàcc yi. Mhm. loolu euh, gis nañu sax temps yëpp mi am ay marche ak tamit Papito Kara d'abord sa sa sa gis-gis jëm ci maanaam teg gi leen teg loxo ñu bokkoon ci ci ci yéen. waaw xam nga loolu c'est très dommage parce que tout simplement euh, Sénégal boo gisee aussi suñu engagement ñu ñuy gën a am doolee tous les jours ñuy gën a am détermination mooy euh, jàpp nañu aussi euh, réewum la moo xam ne démocratie la et que liberté d'expression aussi euh, ci ci ay droits euh, fondamentaux la bokk. maanaam suñuy droits fondamentaux la bokk. Euh, manifester xam nga réew moo nga xam ne si nii léegi mënatuloo wax lu naqari loolu ci Macky Sall lañ ko gisee ci Macky Sall la ñu gisee ni Sénégal régime déclaratif la am en fait normalement ku am lu la naqari da nga war a mën a génn déclarer ko si Macky Sall lañ gis ci wax ko Macky Sall lañ gis ci réew moo nga xam ne soo amee lu la naqari boo génnee mu tiire ay bal reyal. rey ay nit rey ay sénégalais rey ay jeunes Macky Sall lañ gis ci réew moo xam ne si ni su génnee télé waxam bi yëpp ça tourne autour de des menaces mais surtout à l'endroit de la jeunesse parce que mafia kàcc kàcc boobu ngay wax. Hmm. noonu li ko indi sax mooy Macky moo. génnoon Macky Sall moo porté plainte journal moo porté génnoon di wax nii euh, euh, réew moo xam ni da ngay nekk ci sa bureau di kàcc kàcc kàcc boo foofu sax lañ jëlee jëlee tur bi. Hmm. def ko pour wan ni ko dañu am ay ay dañu am suñu opinion dañu ko danañ ko wax. Hmm. danañ ko exprimer et puis les réseaux sociaux nit ñi dañuy wax loolu dañuy wax li nga xam ne moom la xalaat Ousmane Diagne c'est quelqu'un bu nga xam ne ni gars yi bañ ko bëggee am yàgg na parce que il fait c'est un élément important de notre dispositif communicationnel parce que jeunes yi dañ koy déglu jeunes yi dañ koy suivre et que dafay wane faayu système bi dafay wane euh, yi nga xam ne Macky Sall moo koy def et que xamoon nañ ni bis buñ ko jekkoo dinañ ko dinañ ko téye. mais yi ñu mais ñu détourné ay une ba ay journalistes yi porté plainte loolu. non pas du tout pas du tout man pour man am na am na am na am na xam nga réew mu nga xam ne tey am na ay. Euh, député yuy def ay faux billets ay député yuy def ay jaay euh, yuy def euh, trafiquant de passeport réew mu nga xam ne si ni ay ñunu jiiñ ay milliards ñoo ngi ci biti et cetera franchement des jeunes yoo xam ne dañ leen jàpp parce que dañ ñoo dañ doon bind dañ di def un un journal satirique di di di di xaw a euh, reetaan et cetera nga jàpp leen pour man c'est exagéré et que c'est honteux. man hmm. Macky Sall parfois je me demande est-ce que il a des bo il a de bons conseils wala est-ce que sax ses conseils lem quoi parce que man il se fait des ennemis pour rien man Macky Sall dama parce que quand même euh, yow jàpp ay jeune yu nga xam ne yu ay reetaan lañ doon bind ak ay ay ay mbir di kaaf nga jàpp leen nit ñi di la gën a jéppi nit ñi di la xarab ay parents am di génn di saraxu nga continuer entêté wu pour man vraiment c'est vraiment dommage quoi li mu war a def si réew mi mooy les délinquants financiers yi nga xam ne si ni ñooy continuer justice bi dafa nga instrumentaliser non mais bien di que ni am na dossier yu compliqué yoo xam ne si moom moo ci teg ku dem quoi donc li li li mu war a def mooy réew mi ñu tegaat ko ci yoon maanaam ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy dilapider euh, alalu askan wi ñooy ñooy ñooy yàq alalu réew mi di di jaay ay terre ay di di di di di créer ay ay ay di def ay scandale financier ñooñu la ñu war a waxal ñooñu la ñu war a jàpp dem OFNAC génne dossier yi wax ak ñoom xale yu ndaw yi nga xam ni ay jeunes lañ toll ci war a jàng toll ci war a euh, découvrir àdduna yor ay njaboot ñoom Ousmane ak Papito ay xale yu ndaw lañ amuñu 30 ans seen i njaboot ñu ngi leen di xaar seen i yaay ñu ngi leen di xaar am nañ tey jàmbaar lañ aussi ñoo xam ne am nañ ay doom yu leen di xaar et cetera mm. na leen bàyyi ñu dellu ci seen i njaboot te jàll ci vraiment sur l' essentiel quoi. Mm. voilà xam naa sax euh, ñu ngi si njeexital émission bi euh, monsieur Abdoul Ahad Ndiaye bokk Yewwi Askan bi diwaanu